tout mhm. ñu def ñu def ko nànk-nànk. donc centre. Fadilou Mbacké. Fadilou Mbacké. waaw moo nekk fa la président xëy. waaw fa la président xëyoon tey. ay ca ñu résultat yi bureau de vote par bureau de vote. waaw benn bureau de vote rek a génne léegum résultat am. kon benn moo génnagum. waaw mooy bureau de vote numéro 4 bi nga xam ne Karim Wade fa la voté. bismillah. waaw ñoom ñi ngi amoon 895 inscrits. oui. 800, si y a 440 votants. Uh obtenu Moustapha Nias, uh -huh. 102 voix. Oui. Macky Sall, 75 voix. 75 pour Macky Sall. Idrissa, 30. pour Idrissa Kadio obtient 6 voix. Cher Bamba 16. Cher Bamba Cher Bamba 16. 16 voix, voilà. Uh -huh. Maître Doudou 0. Uh -huh. Djibril Ngom 2. Djibril Ngom 2. Ibrahima Fall 46. 46 pour Ibrahima Fall. 44 Tanor. 44 pour Ousmane une voix. Omar Khassimou Dia une voix. Amsatou trois voix. Amsatou Sow Sidibé trois voix. Djouma zéro. zéro pour Djouma Diagne. voilà zéro pour Djouma Diagne. donc yeneen bureau de vote yi ñu ngi ci seen dépouillement. waaw yeneen bureau de vote yi actuellement ñu ngi ci seen dépouillement. ñu fàttali ne local yu mujj yi bureau de vote boobu nga wax Karim Wade voté.